donc sentiment yi am tay ji yu yu yu yaatu la yoo xamante ko exprimer sax carrément parce que une surprise bi li Dangote def surprise pour ñun parce que période bi, pré ouverture des classes à chaque fois dañuy ñëw indi ay lot de cahier bu am importance de matériel scolaire tay nak dañu frappé fort avec des matériels pour respecter les mesures barrières des t-shirts

chaque année bouran am màkk pèlerinage day jox ay billets ñu gis lolu sport aussi de ci vraiment e étaler mais euh, grosso modo ñun contane vraiment ci euh, Dangote semaine. kon ma ngi message entreprise yi nga xamné ñu ngi fi ñu ci bu ñu ci am ñu sensibiliser population avec les gestes barrières te gis naa population ñu ngi koy respecté bu baax a baax a baax ndax ku ne xam na ni cas de Covid euh, cas de virus yi bari na trop trop Sénégal mais mën nañu euh, Kër Moussa peut-être bu fekkee am na fi aussi mënoo ko deux wala trois wala mënoo mënoo mënoo ko canaliser ba ne lii la donc loolu liggéey la boo xamante ni population bi benn ñu servoir bu baax a baax a baax avec ICP.